bëgg rek moo am solo ak yitte waaw tey loolu dafa mel ne taal bu ne bu yàlla da jox tawfee Serigne Touba nga bëgg Serigne Touba di taal jokk Serigne Touba di taal bi Serigne Touba mel na ne yàlla defal ci may na la tawfiq tawfiq bëgg gannaaw gëm ak bëgg ak yitte ndax loolu rek mooy moo mooy mooy mooy mooy kattan gi nga xam ne ku sóobu yoon mi noonu moo moo lay dimbali ba nga mën caa dox muy gëm gu wér gëm gu wér bëgg gu ma sëkk ay yitte ju réeréeré loolu ku mas dem ku mas a jëm ci ak loo sore sore sa diggante sa borom loolu dafa ci yóbbu ah, gëma la ci yóbbu ak bëgg ak ak yitte kon gëm gi moom lañuy ñuy eh, soppee di ko tuddee Pastef waaw ndax Pastef mooy lépp loo xam ne Pastef yàllaa ko moom mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def te yàlla tax nga di ko def loolu moom ci Pastef lañ mën a jógee kon alhamdulilahi rabbil alamina sant nañ yàlla ci yéen bu baax euh, sant nañ leen bu baax a baax a baax baax la ca des nag moo den góorgóorlu rek nag góorgóorlu rek ndax dëgg la suñu borom moo demee noonu moo amul fen fu mu yem li tax amul fenn fu mu yem tey it moom rek a mat jëm moom rek a jox sa bopp loolu sëñ Tuubaa war nañu ci lépp ndax sëriñ bi bi mu ñëwee wóor na ko ne may gi ko borom may indale na ko waaye lam koy xam-xam da ko ne fee dem fekk dem fa fa jullit war a tàmbalee fa jullit war a tàmbalee jéego bu mu war a jëkk jéego foofu la sëriñ bi teg tànkam mu muy jàng dafa di mu jàng li mu war a jàng lépp jàng alxuraan ko ko jàng xam-xam jàng mu war a jàng lépp wëlbatiku nag am ndigalal ci def it ci ci ci ci ci nit ñi ci jullit ñi woo leen ci yàlla jëmal leen ci yàlla ndax may wax ne li fi andi woon yonent yi rek moo fi andi bi sëriñ bi eh, eh, wammu len jëmale seen jëmale len seen borom loolu rek ko fi indi te lu yonent yi loolu rek leen fi indi won kon nak ginnaaw non non serigne bi rek lanu lanu bëgg lanu bëgg am mom lañu bëgg xam mom lañu bëgg àndal il faut que ñu nu gis aw doxinam nu nu bàyyi xel aw doxinam duñ ci man dara sax waaye nu xam ko nu xam ne loolu mooy doxin mooy yoon bi nu góorgóorlu ci suñu kéem kàttan góorgóorlu ci suñu seen kéem kàttan ginnaaw yàlla jox nañu gëm gëm nañu diine l'islam yàlla jox nu gëm nañ Serigne Touba diggam ak boroomam waaw gëm waaye gëm nañ Serigne Touba diggam ak boroomam xam nañ xam nañ li dox diggam ak boroomam eh, bu loolu nag bu amee eh, dana am tawfeex ju rëy chance bu rëy la ñu am boo xam ne yàlla nu ko defal waaye nag mu xam chance boobu nag te sàmm ko anan ko sàmmee mooy góor nag jéem a tegu ci yoon waaye lu mu jafe-jafe jafe-jafe nan dañ jéem a góorgóorlu tegu ci yoon waaw mooy jéem tegu ci yoonu njub jéem a sàmm suñu lislaam suñu kem kattan gannaaw bu ñu ko jéemee xam suñu kem kattan gën a gën a fas doon i taalibe